mën a ñëw sottante xalaat fii mais aussi mu doon cadre ba nga xam ne dafa ñoo war a boole pour ñu xam ne ñun ñoo bokk ndey ak euh, ñoo euh, amul warul am guinéen la wala malien la wala sénégalais wala congolais la donc dañoo bëgg ñun ñu dem ba euh, suñuy ndaw jeunesse africaine ñu xam ne Afrique ñun ñëpp benn lañ benn peuple lañ kenn waruñoo xaajale tubaab bi nag moo moo ñu xaajale malheureusement loolu mooy dox ba léegi moo tax boo seetloo ci thème yi ñu choisir muy l' éducation à la pour euh, promouvoir le panafricanisme maanaam nan la ñuy yaree suñuy ndaw ci ñun suñu aada ak suñu cosaan ci lu ñu moom parce que dañoo seetlu ne tubaab bi daf ñoo daf ñoo ëpp doole dañoo dem ba indil leen ñu infor euh, forcé ñu ñoom seen i yar seen i doxalin seen i waxalin seen i jëfalin ba seen i jàng ñoom ñun seen i programme la ñu yor donc ñu journée bi il faut ñu def ko non seulement pour wax ci loolu ñun ñi bàyyi xel ne ñun africain kenn waru ñoo xaajale ba ñuy noonoo suñu biir di bañante suñu biir mais aussi war nañu xool nan la ñuy jëlee suñu jàng adapté ko ak ñun suñu aada ak suñu cosaan waral journée bi pour la majeure partie pour doomi Afrique doon ben échangeante ku ci nek sa culture séeréer bi xam culture diola, bi joolaa bi xam culture peul bi peul bi xam culture ivoirienne bi ivoirien bi xam culture camerounais bi ainsi de suite ainsi de suite motax on a invité toutes les communautés euh, de la sous-région Madame suñu suñu euh, yeneen mbokk yi nekk yi dëkk yi qui naan dëkku utiliser mais pour nous comprendre nous la inviter. invité la sous-région bi suñu avons invité nañ leen délégation nous ñun dañoo jëmmal Afrique nous li à travers journée yu mel nii vous parce que gens qui moom suñu vous yow des gens sa da bala ngaa moom sa bopp da nga am sa moomeelu bopp sa alalu bopp bala ngaa moom sa bopp li ngay jëfandikoo yow yaa ko moom yaa ko liggéeyal sa bopp ci sa réew la jógee mais ñun malheureusement moom sa bopp bi ci lamiñ la yem mais boo xoolee lépp lu ñuy jëfandikoo nak ci ci tuba bi la jógee nasaraan bi moo ñuy jox lépp lu ñuy jëfandikoo ñun mënuñu liggéey puso mënuñu jël suñuy ressource exploité ko ñun ci num ñu neexee jëfandikoo ci ci num waree mënuñu ko tuba bi il faut mu ñëw jàppale ñu pour ñu yaakaar ne ci la ñuy gën a nekkee à l'aise pour ñun lu ñu def baaxut lu ñu liggéey baaxul tubaab moo mën a ñëw jàppale ñu pour ñu génn ci lañu nekk loolu nag déconstruction de des mentalités boobu ci lañu nekk mooy journée bi tey l'éducation à la citoyenneté africaine maanaam ñun ñu jàngal suñuy ndaw africain dëggantaan nan la war a doxalee nan la war di waxee nan la war a jëfee nan la war a jàmmasante ak ñin ñi nan la war di doxalee bokkut ak tubaab bi li ñu indil dem nañ ba dañuy gis ne jikko yi dafa changé xale bu ndaw day taxaw mag saaga ko wala nga te nekk ci réseaux sociaux indil nañu ko normalement daf ñu waron servir mais daf ñuy yakal parce que dañ ci yakanté di def lu ñaaw di wone suñuy cër di def lo xamante ne dëppawul ak ñun suñu aada ak suñu cosaan mo waral journée bi tay en majeure partie ñu ñu def ko voilà non non journée bi rek doyul boo seetloo mouvement yi ci nekk bari na parce que mot nañ une vingtaine de mouvements Sénégal ci mel Africa First Bima ma JIF Afrique muy jeunesse interconnectée et fusionnée d' Carbone 14 Sénégal notre priorité les citoyens d'Afrique.

yenn saa journée day am sa panafricain dañuy woote kenn du ko xam parce que journalistes yi ñu ngi ci yeneen te loolu malheureusement day distraire la population te xamuñ ñu ngi ñuy nax di négativement te xamuñu ko donc moo tax ñu def journée bi tey xam leen ne panafricanistes yi ne Sénégal yi presque chaque mois am benn mouvement bu xewle dara tout récemment lañ doon def le 11 mai dédié à Omar Blondin Diop Africafos moo ko organisé woon mais mouvement yi ci nekk tey ñun ñoo ko booloo def parce que dañoo ne booloo mooy doole te ñun bu ñu boolewul mënuñoo am lu ñu bëgg te tubaab yi muñ ñi nax ñoom dañoo booloo ñun ñu ñuy nax du ñu féewale ñun ñuy gën di féewaloo di dem mais lii moo ñu war ñun africain di xool nan la ñuy booloo ci benn cadre bu am solo di ci waxtaanee di mën a jëf di mën a dindi ci suñu réew ak suñu askan. bu bés bi jàllee bu bës bi jàllee comme am nañ gouvernement bu bees ma lancé waale appel boobu panafricaniste parce que dañoo ne projet panafricaniste la ñu yor projet panafricaniste warul yem ci wax warul yem ci discours. dañ ko war a jëfee nan lañ koy jëfee nañu teg programme yoo xam dafa méngoo ak ñun suñu bëgg-bëgg africain avons un programme de jeunesse africaine daf mais mouvement aussi gestion parce que c'est une idéologie que nous prenons, nous avons la euh, donc nous ko le a que Nous avons fait. nous ñu ce que nous ngi fi ñun la ce que nous mais nous aussi war à travers c'est un programme fait lépp def su Afrique mm, Sylvestine Mendy Africa First